ma nekkee di wax dana gudd mais su ma demee rek defee benn récap au niveau national d'abord ci wàllum les projets travaux neufs bëri na projet euh, su ma commencé des lignes par exemple les projets d'autoroute aujourd'hui Mbour kaw nag c'est en cours je pense dans le programme de visite di nga visiter benn section Mbour Fatick Kaolack Mbour Fatick Kaolack de prolongement AIBD Mbour donc laal na au niveau de la région de Thiès su ma jëlee de euh, programme PDSAM programme boo xam ni bu ñu defar ay tali la mais boobu laalul région de Thiès dinaa wax lu tax may limee noonu nga jël programme financé par la Banque africaine de développement Sénoba Ziguinchor laalul ñaari programme ñoo am yoo xam ni ci wàllum infrastructure maanaam laalul région de Thiès mais programme yi des yëpp Thiès daf ci am wàll bu ci jiitu mu mën ko wax mooy le programme de connectivité des zones agricoles PCZA Thiès am ci deux axes mooy la réhabilitation de la route Mboro Diogo financée par la Banque mondiale endettement État du Sénégal financement de la Banque mondiale la deuxième voie bu nga xam ni par rapport à ce projet là la de PCZA y a la route maanaam euh, euh, Thiawane Pambal Daaru Alpha financé par l'État sur concours effectivement de la Banque mondiale PCCDA su ma dellu seet le grand projet de programme spécial de désenclavement bi nga xam ni dana toucher quasiment Sénégal yi plus de 2800 kilomètres de route des voiries internes ak aussi des pistes des pistes rurales au moins y en a y a y a six localités yoo xam ne ou six actions yoo xam ni c'est pour la région de Thiès yi démarré bu ci jëkk premier ministre mu lançoon travaux yi mooy Pire Mewane Daaru euh, Baya Baya Diop deuxième axe premier ministre na ko seeti mooy Taïba Ndiaye Mbal Diop le maire de ba Ndiaye wax na ko am na yoon boo xam ni premier ministre ba muy def tournée ci tabaski bi jaaroon jógo xombol jaar Ndiaye ni sera war a génnee njaga ñaaw mu nekk yoon bu am solo yoon boobu dañ ko defar parce que dafa am yoon bu jógee maanaam Sandiara Diaganiao war a continuer Ndiayène Sirakh génnee Khombole et qui sera réalisé dans le cadre de PSD les travaux seront lancés avec le premier ministre y a la route Mékhé Pekes Thilmakha wax nañ ko léegi c'est vrai yoon boobule lu doon jafe-jafe bi mooy l'entreprise dafa démarré woon travaux yi au départ te am woon couverture financière jël dugal ko dans le cadre du PSD aujourd'hui les travaux sont en cours c'est vrai que l'approche au départ entreprise dafa décaper lu bëri mais tey fii léegi mois en tout cas prochain normalement une dizaine de kilomètres du bâtiment dana dana am ci axe boobu la réalisé à partir donc du du, du PSD